salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk yi nga xamante ni yéen a safoo seen bi nga xamante ni mooy Dakar Net saa su nekk ñu jël lépp lu net teg ko fañ ko war a teg fu samedi jotee muy di Dakar Net ci émission bi nga xamante ni mooy top actu yi ngeen ci ànd ak votre serviteur Davida ñu xool nag lépp loo xamante ni rek da cee gën a faar ci ay bés bi ñu daal di leen koy jukkil waxtaan ci ak yéen bi yoon nag na mu doon loo xamante ni yéen mi may suivre bëgg nga ko xam ana mbir mi lan moo tax coow li bari. ba tax artistes yi di défilé wu ku ne di bëgg a wan ni moom ca la mu nekk moo baax keneen ki la mu nekk baaxul loolu lépp tey moo tax ñu waxtaanee li nga xamante ni moo soxal wàllu série yi ci kawit série yi li ciy gis nag bokk na ci ñenn ñi ñu koy jiiñ ñii di producteurs yi beneen côté bi dem na sa ba ci sponsors yi nee nañ ci lu bon lu rek yàqamte nañ ca def seen i produits yi ñenn ñag ñi nga xamante ni seen taxawaay ci biir société bi dañu ko soxla am na ñeneen ñoo xamante ni nag waruñu woon jug di wax ndax am nañ démb donte ku ci nekk am nga sa démb waaye démb dafa war a rafet ba tax ni tey booy wax ak ki nga mën a waxalit ku ne boo waxee ñu dégg la waaye bu sa démb baaxul munoo taxaw bay joxe benn leçon de morale ci kawit loolu seetaan nañ si benn émission récemment boo xamante ni mu ngi daw ci benn télé bu mag kenn ki nga xamante ni turam di malal ñi gën ko xam ci fu malaat mu dal di yëkkati nag ay kàddu doon wax ci wàll lii xew ginnaaw bi nga xamante ni doon nañ dénoncé lii faral di xew ci série yi moo xam ñaaw ñaawteef yeeg moo xam jëf yi bon yeeg moo xam terme yi nga xamante ni dañoo vulgaire yooyu yëpp nag moom mu am nag wax yi nga xamante ni yëkkati na ko ba ñu bari sax ci li ñu tiitaree bokk na ci Fou malaat explose donc le plateau ma jàpp ni nag wax saa su nekk bu dofee donte nopp yi koy déglu war a wér waaye bu dee nag wax ji kay wax wax ji ci boppam moo jël turam soppi ko daal di moom mooy la fu kon bu waxee nañu gis ak la ñu dégg rek mooy dofa wax dafa wax weesuwul ay kàddu yoo xamante ni kaddu yu teggi na la ku ko weddi demal nga suivre vidéo yi ci kawit loolu fu mu am na ay wax yoo xamante ni bi mu koy wax da caa laaxaale ñëpp dem na sax ba yooyu muy wax man nanguma cee di jaar ndax dafa sama sama sama yar mayuma ko ma koy wax mais ñu bëgg ko xamal moom fu mu laat rek dafa ma ne sax ku raté vocation ci rate bi nga xamante ne raté na ko vocation boobu moo ko yóbbee tey ji mu nekk li ndax ñun dañ ko doon xaare mu nekk un porteur de voix dañ ko doon xaaree mu nekk ki nga xamante ni ni ko yeneen ñi rappeurs yi def waxuma kuy rap rap lu de koo xamante ne rab ci boppam lay def lu positif lu nekk mu daal di koy génne waaye tamit lépp lu nekk ti mu daal di koy sànni moom nag dafa ma ne ku daal di koy rate ndax ku xam rappeur li muy véhiculer ci gémminam dafa war a nekk loo xamante ni lu lu rafet la lu askan bi mun a dégg lu mag mi mën a dégg lu ku nekk sax mun a déglu moom nag daa génn étiquette boobu duggaat ci beneen étiquette ñu dalal ko ci beneen boo xamante ni fa la nekk mais nag li ñu gis ci moom moom mooy ki ki ki xumbal plateau boobu mooy ab dof rek bu nekk ci ci cant gi nga naan ko yuuxul noo ko yuuxoo rek baax na nañ la dégg fu mu laat noonu la taxawee ay kaddu yu ñaaw yoo xamante ni yëkkati na ko te li ci gënoon a doy mooy ña fa nekkoon ci plateau boobu ay kilifa lañ muy défendre loo xamante ni waru ko defendre ndax bu fekkee ni dafa ne Sénégal wala lu ëpp Sénégal ñi fi nekk ñëpp ñoom ñoo bokk la ñuy def ndax bu waxee ci waxam yu bon yooyu li ciy wax mooy tout le monde. tout le monde la wax te ku ne tout le monde kon bàyyiwul kenn ñëpp nag olof da ca am lu mu ca wax fu malaat bu fekkee nii xamuloo baatu tout le monde googu man ma wax la lan mooy baatu tout le monde ndax da olof dafa ñëw mu ne la ñëpp dafa am ak ñi ëpp ñëpp ak ñi ëpp ñëpp de bul foog ni mooy majorité bi ah ah dañu ne la ñi ëpp ñi ëpp su fekkoon ni 100 pour cent la ñi ëpp ci 100 pour cent yi nee nañ bokkut ak ñëpp nee nañ déedéet. kon ñi ëpp ci sénégalais yi bëgg nañu lu bon ñi ëpp ci sénégalais yi nanguwuñu lu bon ñi ëpp ci sénégalais yi dañ leen a yar fañ war a yaree ñi ëpp ci sénégalais yi bañ lu bon moo tax ñu du wax ndax li nga xamante ni moo koy firndeel ci plateau boobu nga toog ki nga xamante ni ñëpp xam nañ ko mu bokk ci Jamra di ma Imam Matar Imam Matar doon koo xamante ni sénégalais yi nga xamante ni bëgg nañ lu baax nawloon nañ ko sénégal yi nga xamante ni xam nañ lu baax nawloon nañ ko monte de ci plateau bi moom moo fa newoon mais bu ñu jàngatee ci sa biir wax ngay am ñoo xamante ni da leen di jàppal tànk ak di leen di défendre bay jéggi ki nga xamante ni tey combat bi muy mënee yow mi nekk en tant que porteur de voix yaa ko waroon a mënee muy xeex lu bon mooy di dénoncer lu bon mooy di teg nit ñi fi nga xamante ni fa leen yàlla wax ak yonent bi ak seen waajur teg mais bu ñu la déggee yow fu mu da ngay encouragé waaye dangay jël loo xamante ni jikko ju rafet la yu mag ji defoon ci ndaw ñi nga bugg leen ko rocci yemale leen ak mag ñi ndax soo waxee ba ne lii yëpp mag yee koy def xale bi lay déglu day foog ni la nga wax noonu da ko war a appliquer donc bu ñu jógee ci malaat dañu ñëw dal ci ki nga xamante ni moom mooy saaneex moom it dala nañ ko ci beneen plateau muy wax di wax ba tey ci cadre série yi la ñu ne moom saaneex ku ne xam na ko ci Cheikhou Gueye mi nga xamante ni mooy turam dëgg moom sa neex nag bi mu génnee dañu ko laaj ana li nga xamante ni moom nga gisee ci luy daw nii muy cirque noir saa neex yàq leen lu mel ni xamee dem ba traité leen ni sax dañ leen war a jël moom producteur bi moom caméraman bi ba ci acteurs yi ak actrices yi yóbbu leen ci bàngoo daal leen di ñaf tàllal seen seen yaram tàngal ko baax na nag bu dee lu bon la nekk tamit dëgg la ñu koy def dañoo war a rëkk seen digg bu dee lu bon waaye ña nekk foofu nekk ca cirque noir boobu bu dee xale yooyu am nañ vingt ans vingt un ans vingt deux ans jëm kaw bariwul de waaye fan la ñu gisee yu bon yooyu kan moo leen jàngal yu bon yooyu te moonte lu bon yooyu ngay wax noonu lu ñaaw yooyu ñoom ñuy gis te ki leen ko produire am na fu mu ko gis moo tax moom mu am audacité wu produire li ni mel doo ma ne ci série bu ñu la laaj nga ne doo ci wax muy infidèle te nga leen di teel tànk ak di leen di défendre ndax buñ la laajee yow saa neex da ngaa daw sa responsabilité doo ma ne say collègue lañ wala say xarit lañ say am di jàmm ak lu mu man mënti doon da ne bokk milieu bi ba tax waxoo ci li nga xamante ni moom lañ la laaj ba nga ne ça yenn rien voir ak infidel ma jàpp ni nag yaa xay si bu fekkee ni infidèle danga jàpp ni mënoo ko comparer ak yeneen yi lan moo waraloon Mame ma Gueye jug lan moo waraloon kuréel bi nga xamante ni mooy aar jikko yu rafet yi jug c'est parce que dafa ma ay image yoo xamante ni rafetul ay image yoo xamante ni mënoo toog seetaan ko ak sa njaboot ay image yoo xamante ni nanguwoo kenn ci sa membre famille mu joué rôle bu ne mel kon loolu bañ la ci laajee su fekkoon ne yow comme ni nga koy waxee porteur de voix nga su fekkoon ni yow li ngay wax naan sa maam daf la yar te ku xam maam xam ni amul maam bu yàq sëdd da lay defar ndax dañu ne la un enfant qui a beaucoup voyagé e plus âgé qu'un vieux qui n'a jamais voyagé et donc quand on parle de ce voyage c' est pas parce que da nga yer say bagage dem en Europe déedéet da ngay mën a nekk ak mag bu doon mat ba noppi mat ca la mu mat la lay mottali ba saa yoo toogee xale jaaxal ko loolu la ñuy xaar ci yow saa neex nga tontu li ni mel mais nag defuloo ko waaw bu ñu delluwaatee tuuti ndax ku nekk am nga jaar-jaar muy man mi di wax am naa jaar-jaar keneen ki muy seetaan am na jaar-jaar yow bi nga xamante ni tey ci coow lii dafa bari yooyu yëpp ñuy wax sax promouvoir góor jigéen di wax lii di wax laa saa neex bu ñu delluwaatee ci moor tojaange googu nga xamoon moom nga defoon xaw ma amoon yëre boo xamante ni sol nga ko fa ñu bari xam ñu woon di déguisé wu en tant que jigéen nga def ci sa pochette def ci say coquette def ci sa robe bu dëgër te yow ñu ngi lay jox importance Sénégal yaa ngi wax ñuy déglu mais bu ñu delluwaatoo si ginnaaw comparé ko ak image tey dawatoo amati benn crédibilité dootoo amati benn crédibilité ndax xam nañ sa identité kon am ana sa personnalité ak sa dignité moo nekkoon bu ñu la laajee ci infidèle nga ne lii ak lii ak lii la dénoncer lu bon li mais tu ne peux pas dire ni ci biir infidèle li fu nekk lépp dafa baax déedéet bu ñu jógee ci yow ñu ñëw ci Mame Matar Gueye ñu koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi may ko gudd fan may ko wér may ko li muy combattre muy lu bon li nga xamante ni nit ñi ñoo koy faral di def yàlla may ko ci ndam Imaam Matar nekk koo xamante nii Sénégal dafa war a saa yu xëyee ñaan si suñu borom subhaanahu wa ñu amal yeneen ni Imaam Matar ndax nit ku baax la nit koo xamante ni lu bon lu nekk daf koy dénoncer mais li ma gën a jaaxal dans tout ci période ak moment bi nga xamante ni Imaam Matar mi ngi dénoncer y a kii Sénégalais qui ne sont pas du tout conscients conscience ñooy toog di saaga ma Matar ñooy toog di xas Mama mataax ñooy toog di tuddal Mama Matar loo xamante ni kenn du ko tudd waaye mbokk yi léegi bu fekkee di nag boo jógee di défendre la suñu borom li nga xamante ni moom la wax ni lii baaxul am ñeneen ñoo xamante ni dañoo nekkee ca beneen boor ba di lay xaañ nag bu boobaa dama lay wax waxu olof ba Mama Matar olof dafa ñëw ne la juróom-ñeenti walaakaana ku leen nar a jubbanti sommetul nga fukkil leen te walaakaana yooyu nag bu doon tey ji juróom-ñeent lañ ku la ci saaga nga jóg saaga ko yéen a yem ku la ci wax wax ju ñaaw nga wax ko yéen a yem ku la ci xas nga tontu ko yéen a yem man de li ma lay wax te mooy ñi bëgg lu baax doon ay ndaw li lay wax mooy maam Matar bonne continuation mooy maam Matar bon vent mooy maam mataar yàlla na la suñu borom yokk sa taxawaay ci suñu société bi nga xamante ni lépp loo xamante ni rek moom lañ ci bëgg mooy naataange dañuy jógee ci moom daal di ñëw ci ki nga xamante ni mooy mbay mu nekkoon ci Kouthia mi ngi nekk nag ci beneen chaîne télévisée bi nga xamante ne du ko tudd mbay dafa am génn bu mu génn mu wax ci ku weddi li demal nga seetaan vidéo yi ci YouTube ndax sañu ñoo ñëw taxaw di waxal nit ki lu mu waxul wala ñuy defloo nit ki lu mu deful mbay da nga génn am vidéo boo def bu ñaaw boo xamante ni lu doy waar la Sénégal ñëpp mamb la nga ne sax sa yaay da caa xam sa yaay da caa xam yaa ko wax waaye bu ñu la laajee da wax ne bu ñu la fayaatoon deux million nga defaat man nag damaa foog ni damaa déggul olof ba li ma la leen bëgg a wax nii olof laam du olof bu ñu ma fayaatee deux million ma def kon c'est-à-dire engagé encaissé woon nga deux millions ba tax nga génn sa awra encaissé woon nga deux millions ba tax sa yaay xëm mbay yaa bon weesuwul nga ne buñ la joxaatee deux millions kon yow sa sa sa yaay xamaat ndam la ci yow ñu joxaat la deux millions nga génnewaat sa awra lu rëy la ci yow buñ la joxaatoon deux millions nga defaat ko mbay da ngaa fàtte l'argent ne fait pas le bonheur la plutôt le malheur ana ngor ana fulla ana jom ñu doon xaar ci yéen ngeen di véhiculer ay messages yu rafet ñu doon xaar ci yéen ngeen di génne loo xamante ni dama ne kenn du ko dégg ba am lu ko ci metti looloo tax ñu demaat ba gis temps yi coow lu bari ci diggante bo ak kii di Mamadou Mouhamed Ndiaye Azulabo nee na dañ koy tudd di koy jël moom ci boppam ay exemple ci lu bari di koy cité naan promouvoir na fi góor jigéen moo tax góor jigéen lambal lambal lambal lambal c'est vrai mooy li may wax rek bo li ma lay wax mooy rôle yi ñu leen di jox ngeen koy accepté te pourtant da ngaa wax wax ju doy waar ndax da nga ne génnal nañ la vingt cinq million pour nga def benn rôle nga ne doo ko def mais bul fàtte nii góor jigéen boobu nga joué tey góor jigéen boobu lay ñoom Mame Matar di xeex tey góor jigéen boobu lay ànd sàmm jikko yi di xeex tey kon tey jii xamuñu woon ñu ñi lay suivre ak ñeen ñii nga xam te ne yéenay suivre ni loolu nga doon joué nekkul woon nag leen doon promouvoir xamuñu ko kon munoo ñëw tey ba fii di def ay excuse wala di am loo xamante da nga koy leeral ci li mel donc loolu rek war na leen ne yee yéen ñi muy suivre wala mu am kenn ci yéen koo xamante ni bëgg naa def loo xamante ni suba bu toogaatee daf koy rëcc kon azula boobu lu ñu lay wax rek mooy bu beneen ne bu ñu leen di joxaat yeneen di rôle na ngeen ko xoolaat waa léegi ki nga xamante ni nag mooy persora ci moom laay ñëw moom persora mi nga xamante ni ah ñi naan ko naan ma moom tamit dalal nañ ko ci benn télé mu am nag wax jum ci wax mu doon wax ju doy waar nee na proposé nañ ko ay millions ngir mu def benn publicité jëmale ko ci li nga xamante ne mooy sàngara mais man li may metti ci ñoom bu ñu koy wax <coughs> du neex a gëm de yow millions yi ñu lay proposé te ki lay proposé millions yi yaa xay si bu loo dee mënuloo ko dénoncé saa su nekk koo ci wax lay wax fay nañ ma nangami million nangu ma rôle bi waa kan moo la fay yooyu xanaa lu bon dañ koy dénoncé ki la fay million boobu soo ko dénoncé wul mu demaat jéggi la fii xoolaat keneen pour pour fayaat koy million mais dee leen dénoncé bu dee liggéey di wax moo ne azul la boo nee na fay nañ koy million ngir mu def yow it nga neñ fay nañ lay million pour nga def publicité euh, alcool waaye yaa xay si feeñal leen ñooñu dooma ne ñooñu ñooy jaaraat di daal di financé ñi nga xamante ni ñooy yeneen i producteurs yi waaye yaa xay si bu fekkee ne yërëm ngeen xale yi bu fekkee bëgg ngeen aveniru xale yi bu fekkee ne li ngeen di wax nii dëgg la ñi leen di fay xaalis bi ta nekk ci seen ginnaaw dénoncé leen lu bon lu nekk moo góom ñoo yem boo ko fajul waxoo ku ko mën a faj dama ne sa gémmiñ gii foo yaakaar ni boo foo néew aaya ñu wuyis la foofu nga yóbbu bu ñu foofu nag laataa ñu koy tëj dañu ñëw ci li nga xamante ni ku nekk bëgg nga ko muy référence ndax dama ne saa yoo amee référence doo dund dalay souffrance malgré même la distance par connaissance et reconnaissance tu feras tout le temps li nga xamante ni mooy sa différence nañu dem ci démb bi yàlla ko suñu borom yërëm te xaare ko na mu doon koo xamante ni référence la te moonte amul ku mu reetaanul amul ku mu defalul rôle ba nga kontaan reetaan tey ma nga dem ca Barzak moom it dénoncé woon na fi sax ñu ne ko am na rôle boo xamante ne soo ko joué te rôle boobu ci julli la ko lañ ko ko waxee nga fexeere ba sa jabar jiitu la nga nekk ci ginnaawam mu jiite la image boobu bu buñ ko jëloon yóbbu ko waaye waaye yaa xay si kon diine day def nii ngëlëb ndax buñ demee ba gis jigéen muy jiite góor am na lu muy tekki mu bañ ne ko suñu borom yërëm taxaare ko arjana firdawsi ñu ñëw foofu dem ci bàyyi ili ñu koy ñaanal suñu borom mu may ko wér amul lu mu deful senegal amul lu mu deful ci senegal façon role bu nekk joué na ko fi te mosuñu ko dégg ci yu bon mosuñu ko ci dégg ci yenn rôle yu dul ci role yu baax mbokk yi ñu war ñu jàngat ci lu bari que ni toog di reetaanloo nit ñi nañ ko def positivement waaw gis ngeen boo leen demee ca ca ca Gorbel Diagne ndeysaan ndam si yàlla si soxnaam yi mu dajale woon ki nga xamante ne mooy suñu yaay maam say na ko suñu borom yërëm te xaaree ko àjjana mais ana jigéen ñooñu ñoom Gorbel Diagne ana ñi nga xamante ne ñooy Abou Camara ana ñeneen ak ñeneen ñoom Thierno Ndiaye Dos ñu baax ñooñu nga xamante ni luy théâtre tu nekk kuy théâtre ñoo la mu su ñu génn seen i cër jigéen yooyu dañ daan woddu doonoon ay lingeer ñoo xamante ne suñu arrière te fu ñu daan fekk ñoo rawoon guerrière sàmmoon nañ seen i carrière mais ñun loo ñu gis koo fi gis si suñu théâtre kat yi ma nga dem ca pono arrière ñu jël ko yóbbu ko fourrière c' était tout simplement votre serviteur Davida ci seen émission bi nga xamante ni mooy Top Actu di am fii ci Dakar Net fii la nag ak boobu ma leen joxaat di daje samedi incha allah.